Thank you. taxaw ko taxawaay bu rafet di wax géejawaay nañ ko jàppale seen doom la te xale la te mën na bëree li si kanam raw li bët nag yàlla na yàlla def jàmm man musuma ñëw la arena maa ngi doog a ñëw. jour bi combat bi di taxaw daa am loo ma wax ma ne la booy bi mu jël am na doole weex na mun naa xeex nga ne ma man maa moom combat bi. sama combat la musuma gis esaat man du ma ñëw di yóbbaale defet ndam rek yàlla na yàlla nag dolli jàmm waaw na ko yàlla def nag mu doon ba doon roi des arènes ci a baax a mention spéciale waa di gërëm tam waa buxu ñu jàpp si combat bi bu baax a baax waa bayax su ma limee juum waaw yaa ngi dégg waaw jaw ñëw fa ñu déggale yaa ngi tam ne mbër waaw waaw bilaay kontaan rek ginnaaw ba ma sant yàlla di julli yonent bi di sant samay ñaari waajur waaw combat yi nag déggoon nañ lu nekk bilaay wax ci bëri woon na booy bi ngay bëre dafa mën bëre dafa mën bëre man ni ko man ku mën bëre laa mën a bëreel mais ku mënul bëre man aw ma ak bi mooy sa premier combat waaw di sant yàlla rek bi mooy suñ premier combat. sortie bi nga bëre bëre bu bi la dëgg la ñun moom miin nañ jëw quoi ñun ay ay ndaanal lañ yàgg nañ si wàllum làmb parce que man damaa tooñ mbapat fii soo ko dem si àll bi. billaay walaay. waaw maa ngi gërëm nag ñoo jàppale si combat bi yëpp. waaw ku si mel ne ñoom Khalifa waa koñ bi gars yëpp fàttewuma kenn. waaw gars yi si jàpp si combat bi yëpp ku ni suñu coach Balla Gaye mi ngi ñuy jàppale bu baax ak Lamine Golo ñëm mbës gaa yëpp ak gaa yi ku si mel ni Diaw de waaye ko dali Balla Gaye su ma limee damay jum maa ngi sant Père Mbow di gërëm ñëpp Lamine Samba ngañ dem ba borom ko nga bu baax waaw suma ma limee rek damay jum dangeen ko jàpp bu kaay kaay forsa kaay kaay kaay kaay kii suñu doom la boo gisee li ñu daj ñu koy daj kii dama bëgg nit ñi xam ni doomu aadama yor seeni sagar nekk ci mbedd mi dañ leen a seetaan mais kii dafa feebaru yàlla dogal ngañ dem ba bële jël développé xaaj bu bari ànd ak Samba man Père Mbow Xaadim Gueye Lamine Samba barki Seydina Mohamed ñu andiwaat ko ci société bi muy booy boo xam booy bu neex a jàppale la força kon tey bu ñu lii amee dama bëgg réew mi rek laay jox message boobu ñuy bàyyi nit ñi nga xamante ni dañuy jàpp ni xëy na ñii bu ñu leen seetaanee ñu limboo seen sagar ñu andiwaat leen ci société bi xale bii loolu moo doon problème samba mi xam na li may wax nga jëm ma li taxaw xam na li may wax li tax nag moo koy wax ci télévision bu mag bi mooy man leer na ma ni sa liggéey dépassé na foofu te lii ma lay wax nii soo ko génnee adduna bi dégg ko danañ xam ni waxi dëgg la nañ bàyyi nit ñi niy dofloo ñi feebar yàllaa leen ko teg kon nañ leen andiwaat ci société bi waaye kenn du ngañ dem ba borom géejawaay lépp mooma barki Serigne Babacar si duma ce dara Samba du ca dara lépp ngañ dem la jërëjëf. kontaan am na solo Samba loo ci bëgg waa Forza dafa nekk booy boo xam ni boobu yëg doomu aadama la ngañ dem ba woo ko teg ko sama loxo ne ma wàllu misi gëmam yëpp yaa ko yor. billaay wallaay taalaay combat bi ndam rek la si mënoon am te filaal ko wax Balla Gaye 2 jaar sama loxo. lees Elton Lattaguère mbër yu bëri géejewaay ànd naa ñoom am na fu ma jaar ak ñoom kon ngañ bu tourné na ma jëlal lépp nga teg ko sa loxo am na lu tax te fii laa leen ko wax ba deuxième combat incha allah si kàttanu yàlla fii laa leen ko wax bu soobee yàlla dina teg lay victoire victoire léegi ñu dégg ko man maa lay wax loolu man Samba Gueye man. solo Adama. mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen nuyu. di am kontaan ak mbekte ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi di jam production. grand combat bi tey dafa nekkoon ci diggante Gora Sock ak Fils de Balla Fils de Balla am blessure wala Gora Sock am blessure gaañu ci genou yóbbu certificat médical am CNG bi xam ni mënul bëre ñu jël combat bi nga xamante ne moo nekkoon combat spécial bi di Gaaw Gourdé Ronaldinho indi ko ci grand combat bi mbokk yi combat Calcio ak Wouly waroon na am waaye kii di Calcio dafa am blessure ñu koy ñaanal wér di ñaanal ki nga xamante ni mooy Gora Sock wér mbokk ñu dugg si ci biir wala lépp loo xamante ne xew na fi ambiance cosaan ak làmb kaay Adama let's go. Oh! Ndeye Mbop. sama sama fils la quoi. muy naaj kay. sa adversaire. waaw dugoon recours. waaw recours boobu jàll. waaw CNG waaw lan ngay wax ci mooy bu fekkee daa bëgg drapeau bi. mu ñëw suñu kër ma jox ko mu dem ñibbi Malika. instant yii doyal naa ndax feetu naa ba pare. léegi na ñëw ma jox ko drapeau bi du drapeau la soxla. na ñëw ma jox ko drapeau na appel beneen appel. pour rien que mooy. ndam ci kaw Caatu Yaraax moom yàlla jox na ko Caatu Yaraax ndax daan naa ko fi ñëpp macha allah xam nga ma dem bëggee ak samay mbokk loolu jeex na ngir yàlla na gëm yàlla man bu ko wax ci moom contrat moo ñu boole woon jeex na nañu xool nekk sama kanam moo daan dañoo ñu bëre. moo daan damee na mu Cees. xamoo sa bopp xamoo sa kan nga bëgg mu jox ma ko. ànd mujjee bëre Diène Kairé ngay laaj moo daan. man Diène Kairé laa taxawoon pour ñu bëre muy dem avancé boobu léegi. kan laay bëreel kan. kan laay bëreel keneen léegi kan. kan kan non non bëri ma kay njaay ten waay. lu tax man maay décidé. damaa xew. waaw loolu moo am. moo tax ma bëgg mu ranta. waaw. waaw kon dañoo ñu. Kaw Gourdin ci kàttanu suñu borom. li liggéey ak moom. bu ko wanee day am ndam bu rëy incha allahu rabi. Hmm. ci kàttanu yàlla day am ndam. bi passé da xale la bëre woon fii. waaw indi ndam lu rëy. waaw combat bi ki muy bëree ndaanaan la Ronaldinho ñëpp xam nañ ko ci làmb. waaw mais kii jinne la. ay gàllankoor ko teewoon yu sew rek mais commencé na wane boppam muy ci mbabat bi muy ci arène bi te billaahi li nekk ci doole ji moo ëpp fuuf li feeñ ci jëmmam kaw champion la seetaan nga combat bi passé tey nag maa la ko wax tey xoolal combat bi waaw dina gaaw dina gaaw na gars yi ñoo ñu bëri nag ku pare ku pare pare naa laa ma tax a jóg laa ma ñor sama doomu ndey ka wala maat laa ba soonu ñëwal seeti mbisaan joon mu tiwaan nga laang ma laag da ngaa war a ñëw tiim léegi kon gëm nga ni man damaa laaj. non war a ñëw tiif. kon damaa gëm ne woon naa la mais gisuma la. gëm nga ni damaa laaj. non da ngaa war a ñëw laa man damaa bëgg nga ñëw. programme lamb yi xam nga dafa bari jóge fii dem Tivaouane dafay xaw a métti. les félicitations. merci merci. bëri nga combat bu rëy façon ni nga bëree ba ni nga génnee ci lamb ji mbër bi la biir Fass tey lan ngay wax. waaw dañuy dañuy sant yàlla bu baax julli si yoon bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu waajur bu jigéen yàlla na suuf oyof si kawam di ñaanal sama ndijaay Baye Yoro Diouf na suuf oyof si kawam di ko ñaanal Baye Gara Seck yàlla suñu borom yërëm ko aussi tamit di sant waa département Tivaouane région de Thiès bi yëpp maa ngi leen bu baax gis naa taxawaay bi dañ maa yéene ba ma xam ne yéene nañ ma di sant suma grand Abdou Gomaay depuis combat bi taxaw ba léegi nii yàlla xam na ne xam naa ne mu ngi ciy def ay jéego barke alxuraanil karim yàlla xam na ko kon maa ngi sant waa département bi yëpp aussi tamit di leen wax kontaan naa trop si taxawaay bi. ñaata combat. bi mooy sama huitième combat. ñaata bi mooy sa ñaata combat fii ci. bi mooy sama premier combat Dakar. bi mooy sa premier combat. waaw ñu ñun ay xale lañ dañuy dugg si àll bi di compétir. damay fas yéene toog Dakar wala dangay resté. non damay nañ ma jox si xale yi moom. si waa Liss Ndiago na ñëw ñu bëre. Liss Ndiago waa nañu. génn mer la fanaanoo ñun ay doomu dëkk lañ. comprendre nga liy topp suñu ginnaaw dafa bari te ñoo yaakaar yàlla xam na ko nañ ma jox Liss Ndiago ma wane sama bopp. jaajëf jaajëf. jëli na daan na waa lii laal lii laal la booy bi gàll la kii lu jël daan waa lii laal booy bi daan na waay oh ndeysaan fils de Sam Sam ak bébé Jali combat only girl too. Mbakki bi ayo abu sugar.

Bambilor Bébé Diwane nga jàkkaar lool Yakhine Bambilor Bébé Diwane ndaysaan arbitre bi sifflé na ñu ngi leewaatoo oh ndaysaan waa Grand Dakar yi dañoo mën a sot dañoo sot ñoom ñëpp dañoo ñëw ànd xale bi di jeex jàmm. ndeysaan ndeysaan komba baa ngi noonu ma nga noonu ña ragal naa yàqi mbambiloor bu làmb ji jeexee day ñàkk komba am ndeysaan ma ngay dóor ma ngay dóor yàqay ngay dóor ah combat bi metti na yàq Bambilor ak bébé diwaan combat bi metti na combat bi yàgg na combat bi diire na yàq Bambilor bébé diwaan ñoom ñaar ñu noonu yàq Bambilor bébé diwaan yàqin Bambilor Bébé Diwane yàqin Bambilor Bébé Diwane ñu ngi ci combat bi ba tey combat bi temps am na ndam yàqi ñàkk na yàqi ñàkk na lamb ji waaw waaw c'est normal c'est am na ci kaw yàqin Bambilor Bébé am na ndeysaan lii dafa rafet lii dafa rafet lii dafa rafet barki Serigne Touba lu bëri lañ bokku mu ko tax combat bi nii la mënoon demee billaahi dama seetaan benn interview di gërëm si yaayam gërëm si papaam am turu yaayam am turu papaam ma ne ko su ma ko naree liggéey su la yàlla naa daanu kii Baay Faal la barki Serigne Touba bi mu ko li ma leen turu yaayam li ma ko turu ko mais man am na ñu ne am na ko man daal ma ko def ma tax bu ma ko def damaa def. dëgg la combat gor na combat man dox ma jël ko. waaye dañ ne ma sàmm yoo la. musuma am na ko musaa gis man de man mën naa ko jël amul problème. bii dara lii dix jours arbitre rek. waaw jël bu ma ko daan ñun ñoo par ñoo bokk ndey ñoo bokk baay maa ngi jégalu waa Bambilor di jégalu ñi ma ñaanal yëpp kii maa moom li ñu boole dafa bëri suba dina ma seeti dinaa ko seeti ji kii dafa am benn gayan boo xam ne moo koy defal lépp moo may defal lépp combat bi dama dem ba si biir jamais que utal ma adversaire mënu ma ko am yàlla def diwaan nangu maa jël ñu bokkaat caatu ngeewal di sama jarbaat bëre ak moom am si moom ndam mu rafet kii Baye Fall la lamb ni la jabar bu moo ñëwoon doon gasson d'honneur moo tax xam rek mënu woon defe tol mais léegi nag foo naa la ñu fi nekk douze déglu ma la déjà dix victoire dix deux défaite fii ñi maa la gën a riche palmarès suñu laa jëm grand combat bi mais nan woo di dëgg douze mais rafet rafetul quoi. Mbaye Tine nee na ko sangu. Mbaye Tine nee na ko sangu. ñoo ngi sant bu baax. yàlla yàlla may ñu nañu yàlla may ndam. sa combat bi passé da ngaa xale. ñëw dóor ko kuu mu nga accompagner ko daan ko mun mën nañoo séntuwaat loolu ci yow. coono rek yàlla nañu yàlla suturaal may ñu ndam. mais ci bépp côté. école de lutte Dalifort yëpp mu ngi sunu ginnaaw Dalifort foraay bi ñëpp a ngi sunu ginnaaw ñaan yàlla mi dara tawul ñu ndaw ci kaw Ronaldinho moom ñooñu ñëpp nekk sa ginnaaw ñëw du doon pression ci yow gis Moussa Ndoye Thiatou Yaraax yeneen bu xale yi yëpp ànd ak yow di la soutenir pour nga am ndam non du doon pression parce que yàgg nañ ko defalante yàgg nañ ko defalante dañu ñaan yàlla yàlla suturaal may ñu léegi nañ ñaanal seen doom soxla na ko trop fu mu firi de. waaw sant yàlla rek. waaw loolu loolu impression. non dama fas yéene bëre. dama fas yéene bëre. kooku de dañuy bëre. ñëpp la ci wàllu bëre lan nga koy wax. yow man lan la. non yow moom macha allah xale yi fi gën a tëj yaa leen tee. waaw kon yàlla rek. bu ñëwee ñu bëre moom làmb ci neex moom. bëre ak xeex lan moo leen gën a parce que amateur yi tey bëre lañ nam nam. bëre door lañ wax nag surtout tamit lu nekk mën naa am mais dégg naa intervenir rek ñu wax am na solo trop mu ne bu ma bëree dina ko neex trop. waaw man damaa bëgg yéen ñaa ñëpp ngeen bëre wane wuree ci bëre. waaw bu ñëwee rek mu neex. combat bi passé dafa bëre caatu daaw dafaal dóor ko kuu mu wàcc mu daw jël ko accompagner ko bëre moom est-ce que tey mënuñoo séntu seen diggante yi ñaar kenn ñu séntu xeex far mu bëre kenn ñu xentu bëre far mu xeex waa loolu tamit sant yàlla la rek tamit mais ñooñu noonu ak Ronaldinho bokkul quoi am na différence bu sore sore bu si nekk peut-être nag bëri na loo xam te maa ngi koy bëre waale xoolal ñi ma daal ñëpp kenn jàpp ma si kenn seen gémb ñëpp doo ngi leen daan en ku si nekk axli ma daan te du ma laal sa ngemb bu ñu àggee lépp dina leer bu ne xëyaat suñu borom na taxaw ñu bëre ñu bari dañ ne dafa bëre dafa mën a bëre moom tànku waaw non dafa moom moom sant yàlla moom dafa mën a bëre li ma daanee ngeer ba léegi dama damay moytu moom na ñëw moo jël si jëm boppam moo jël Papa Ndoye mooy Naar Fall maa gën a gaawle combat ci saison bi bi may jàppee ngeer dama koo tap teeli maa ko njëkk a jox defet bi ma koy jël mu ngi ci neuf combat victoire traitement bi maa ko njëkk jox defet bi ma koy jël boobu mënu su la am defet. da du question weex sax. xam nga rek sama rak. too sama rak rek moo ma de mooy Ronaldinho. parce que heure bu ma nekkee ci biir géew bu ma tàllalee loxo rek bu nee maa mu gaaw bu ne maa mu yéex mu yéex. dafa lee trop gars yi nañ ñëw ñu bëre moo gën ñuy moytu woon de. moo jëm mu ngi fi Papa Ndoye amuñu combat dañ ñëw bëre man. Papa Ndoye si jëm boppam. déggoo li ma la wax man kenn musuma sonal ndeysaan ma nga noonu Aliou Boy sama bu sa bàyyi Serigne Ndiaye dellu si waatoon doo defar toogaay déedéet toogaay bi rafet na baax na sama xarit bi waaye kenn du joroy kee ndeysaan le BSM des promoteurs Adama xale la boo xamante ne bi ci lamb ba tey ku yokkul yaa wàññi waaye yokku wallaay yokku na Eh, loo bëgg mu jox la naree ko sëñ Saliou Aïda maa ko xam Aïda Saliou soxna Aïda Saliou soxna Aïda Saliou soxna Aïda Saliou seetkat mag lu mu seetlu baaxul waaw sama waaw bu baax. Ah. daf may seetal bu baax. bu ah laaj ko ab ba gis. ah, ah man naka réew maa gis. ak maa yomb a gis. Eh? soxna Aida Moussa. Thank

taxaw ngi noonu di waaj a sifflé combat spécial bi dox ci diggante jeex jàmm Souleye Gaynde jeex jàmm moo la woon ginnaaw Souleye Gaynde nga jàkkaar jeex jàmm Souleye Gaynde joor Souleye Gaynde moo la fétan di càmmoñ soxna Aïda Saliou ndeysaan jigéen boo xamante ne jigéen bu mën góor la tey dara bis mu ñëw ànd ak délégation bu rëy ci biir délégation ba gis naa ca Rick Aliou Beuss Papis Sène ndaysaan ak xale yi parcelle unité 3 taw na jël ko jël na ko soo gee na tax tàmm daan na ko lu xaw daan na ko waaw waaw jeex daan tax tàmm daan na su lay gaynde jeex tàmm daan na su lay gaynde jeex tàmm daan na su lay gaynde eh! Jeex Jàmm jël nga drapeau soxna Aïda Saliou ay Jeex Jàmm jël nga drapeau jigéen bu mën góor ay Jeex Jàmm jël nga drapeau ki nga xamante ni seetkat yu góor yu jigéen ñi ñëpp mooy seen moom soxna Aïda Saliou yàlla ko def taalibe Serigne Saliou la Serigne Saliou la buddee boppam moom la bëgg moom la sopp boo ko ci naxee mu jël moom Serigne Saliou ah waay jeex jàmm waay eh waay jeex jàmm waay jàmm jeex na tey waay oh waay jeex waay xale bi wane na boppam waay ndeysaan kii arbitre bi sifflé na grand combat ba ngi noonu dox ci diggante Kaaw Gourdin ak Ronaldinho mbokk yi dimanche 20 mars 2022 arène nationale journée Thiam production il est 19h35 minutes Kaaw Gourdin moo la woon ginnaaw ndaysaan nga jàkkaar lool ñoom ñaar ñu ngi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 toogal balaa ma lay xët ndaysaan gaaw gurde di <laughs> wallaay maa mën a tooj gaaw gurde Ronaldinho ndaysaan gaaw gurde Ronaldinho gaaw di Ronaldinho Ronaldinho moom moo la woon ginnaaw wala boog moo la a féete ndi joor actuellement Kaaw Gourdin moo la féete càmmoñ Kaaw Gourdin ci ndam la jugee diggante ma caatu daaw dafaal fii la woon Ronaldinho suma juumut diggante ma ci ndam la jugee diggante ma koña deux fii la woon ndaysaan ñu ngi lay ñoom ñaan ñëpp ay mbërëntaal lañ ku ci nekk daa mën a bëre Ronaldinho daa mën a bëre caatu daw def dóor na kaaw gune dóor na kaaw gune dóor na ndeysaan dañuy waaj a xeex jëli na ko jëli na ko kaaw ngay dóor kaaw ngay dóor kaaw ngay dóor kaaw gune Ronaldinho tiq na bañ na gala yaa ngay dagg la ilaha illallah dañoo fas yéene bëre a xeex dañoo fas yéene bëre lu ko kaaw nar def tegal 16 wër na ko bañ na jargandalu lu xew carte appui wala déet wëraat na ko ndomba lu def carte appui wala déet daan na ko Adama daan na ko Kaw Gourdin daan na Ronaldinho Kaw Gourdin daan na Ronaldinho Nday Mbacke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 lamb la billahi lamb la lamb la li sa kanam yal na barki yonent bi lamb la ndeysaan daanaan yi bëre nañu fekk di ñëw kabu ne ndeysaan lamb la ñu xari ma bi lamb loolu kabu ñëwal kabu ñëwal